jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyoo nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, di leen baalu àq bu baax a baax a baax tey di leen baal di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo am njëggal yàlla na suñu borom boole jéggal ñu ngi fii ci mariste comme niñ koy defee ci wasaare làmb maak sëriñ Basiir borom mbég mi taan mi ñëwaat ci jàngat làmb sama waa jaa ngi noonu ma koy siyaar bu baax a baax a baax sëriñ Bas maa ngi lay siyaar di la bëggee di la màggal. waaye ji li delloo ziar boo ma nammee dóor rek naa ma sama waa jaa ngoog <laughs> ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu aadama di ko ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci wasaare lamb di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan réew mi yàlla na fi jàmm sax jàngoro ji yàlla na dem ci ni mu gën a gaawee euh, ba ñu reprendre suñuy activité ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi jili Mm, amin sëñ Bas kontaan nañ bu baax a baax ba barki démb de xam naa ne añ bi ñu fi añ man ak aadama kontaan nañ ci yow dëkk bi fi fi dëkk bi fi réew mi toll. ñu añ fi ci añ bu neex boobu macha allah fa tabaarakallah ah, waaw mais buñ ko amee jël de ndax heure añ moom fii la ñu fekk. waaw di la jaajëfal bu baax a baax a baax di la laaj naka ndékki mi ndax xam naa ne comme Diouf nga sant moom macha allah te dégg naa ñi sant Diouf moom balaa ñoo xëy mën a téye micro dañuy ndékki. lekk ba ba yëg ko cere nga réere ndékkee wala mburu non pain pain bi laay ndekkee pain mooy mooy mburu <laughs> <laughs> dama ko bëgg ba mënumaa jaar direct ci turam oh, loolu boo tax waaw sama xol day sedd sedd xam nga rek ñun séeréer yi moom bëgg nañ ko bëgg koo xam ne nii euh, suñu lonkoo la daal mais nag bu ma xëyee moom du ma lekk pain damay xëy naan sama kafe après tenir ba heure hmm. noonu nga koy faral di def parce que dafay mel ni bu biir bi feesee dalay tere def say activité mooy ubbee après ma continuer léegi añ bi ay 16 heures 17 laa koy jël nga xam ne bu ma ci jëlee tuuti du ma yàqal dara dinaa mën a continuer di fonctionner ba ay 22 heures 23 heures may doon couvre bi moom xanaa doo wàcc naan da ngay jënd man même bi couvre fa amul sax euh, heure boobu laay reer mais du ma wàcc di jënd reer parce que man yu yu kii laa koy def quoi yu mag yu njëkkee laa koy def damaa yor sama cere di siim di lekk. wala ma sama sama couscous di siim di lekk. <laughs> waaw ku lay siim bi bas gars yi di la siim de ki sant Diouf la sant nag ah boobu xam naa ne comme Diouf nga sant. ay ceeb nii ay yàpp guddi yooyu yëpp daal baax na trop nag mais mën naa am sama cere ju baax ak sama meew rek wala sama couscous ak meew. kenn gënu koo dëgër de fi réew fi réew mi toll fi mu toll nii. <laughs> jërë jëf mbokk yi kooku booy sëriñ Basiiru borom mbég mektaar mi ñu leen di siyaaraat bu baax a baax sëñ Bas nag dañuy jël ci xët bu démb ak bu tey démb nag moo nekkoon mardi 7 avril 2020 suñu làmb di titre ñi nga xamante ni ay champion lañ ci làmb ku tudd Moustapha Guèye xam ne moo nekkoon deuxième tigre de euh, Fass moom Moustapha Guèye champion la ci làmb def na lu ne ci làmb fu làmb yegg moom yeggale na ko fa moom suñu papa Moustapha Guèye euh, keneen ki di Mouhamed Ndaw Tyson Euh, Mouhamed Ndao Tyson tamit def na lu bari ci làmb moom it pikin drapeau pikin bu bu jugee ci kaw flambeau bi Mouhamed ndaw Tyson doom mooy ki nga xamante ni moo ko yëkkati moo ko fa yëkkati ba Pikine doon pikin ba tey euh, mu doon koo xamante ni tamit làmb du ko fàtte keneen ki di Yaxya Jóob Yékini dama lay daan dem Zawal jàll baasul loolu ku ne déggoon na ko ci moom mu doon champion boo xamante ni làmb dañ koo namm waaye ndeysaan def na lu ne moom it ci làmb Yaxya Jóob Yékini bu dugg siwaat waat ak béjjënu kooba bi nga xam ni champion la mën na li muy def mën na bis Mouhamed Ndao Tyson noonu Moustapha Guèye noonu ana lu ci suñu làmb wax waaw sunu làmb li mu titre talaata loolu la diggante ñetti champion yi nga xam ne làmb miin na leen xam na leen muy Mouhamed Ndao Tyson comme ni nga ko waxee Yaxya Diop Yékini ak Moustapha Guèye deuxième tigre bu Fass lim ci wax mooy ñoom dañoo génn euh, sorti par la petite porte noonee sax la ko tuddee maanaam dañ bi ñuy génn boo xoolee génn boo xamante ni génn bu leen neexut la. Euh, ndax énuméré na ñoom ñett ñëpp ku ci nekk na nga génne Yaxya Joob ni ci defet la mujjee bëre moom la. ñaari la tegle. waaw Balla daan ko la daan ko mu bàyyi. Mhm. Euh, nga gis euh, Moustapha Guèye moom it ci defet la mujjee. defet la tegle moom it Balla Gaye 2 daan ko la dëgër 2 daan ko mu bàyyi. voilà gis nga Mohamed Ndao Tyson aussi ci defet la mujjee. moom it yaakaar naa Balla Gaye 2 moo ko daan Gris daan ko mu bàyyi. Mhm. Mhm. mu nekk génn boo xamante ne nii moom jàpp nañu ne du génn boo xam ne nii neex na leen moo tax ñu mu ne sorti par la petite porte mais jii li ñooñu euh, bu ñu génnee par la petite porte wala ñu génn par la grande porte yépp seen jaan wàcc na parce que nag làmb tey boo tuddee làmb ba làmb jeex depuis ñu commencé bëre ba suñuy jonn yàllay tey nga génn ci turu Mouhamed ndaw Tyson làmb day manqué nga génn ci turu Tafa Gueye làmb day manqué nga génn ci turu Yaxya Jóob ni làmb day manqué euh, certes génération yi fi nekkoon yépp bay nañ seen waar ci làmb mais kenn du génération bi ndax nag boo xoolee ñoom fi ñu fekk làmb fi ñu ko jëlee ak fi ñu ko yóbbu bu nekk toon ñoom tey làmb du àgg fi mu àgg bu nekk toon tey duñ tudd ay millionnaire ci làmb bu nekkutoon tey duñu tudd ay mbër yu yu am benn capacité mentale bi mën a doxal seen euh, carrière ni mu waree ci professionnalisme bu mat sëkk. sëñ Bas doguma la yàlla bu la dee dog euh, dama bëggoon ñu waxtaan ci ku ci nekk ñoom ñaar dafa am fu mu fekk làmb mhm. indi ko ci benn niveau bi keneen ki fekk ko fa indi ko ci beneen niveau keneen ki fekk ko ko ci beneen ku ci mel ni Moustapha mhm. moom la Tigre de moom dafa amoon fu mu fekk làmb mu jël ko yëkkati ko Moustapha Guèye de fan la fan la fekkoon làmb waaw Moustapha Guèye fi mu fekk làmb euh, bari na parce que nag boo xoolee euh, Tapha Gueye génération am wala période bi mu bi mu fekkee ci làmb boo xoolee mbër mu yemoon ci moom ci taay ak ci poids raaroon na mbër yi nga ci doon gis yépp gabari bi dañ koy am boo xoolee dañuy rëy ci ci ci ji jëmm ba pare te ñu ci bëri certes ay ay ay mbërëntaan lañu woon mais am na lu bëri lu doon manqué ci seen technicité vivacité aussi da leen doon manqué mais Moustapha Gueye boo xoolee moom bi mu ñëwee ci làmb tollut noonu comme génération ba mu fa fekk mais aussi ci côté technique mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo tudd nit ñi bàyyi ko ci côté vivacité aussi fi la doon euh, lore ñu baree baree baree bare donc mu indi beneen génération boo xamante nii dana tax mbër yi gëm ka ak ñun suñu pois bi nu yor wala suñu taay bi nu yor war nañoo gagné lu bëri ci làmb bu ñu liggéeyee li ñu war a liggéey am benn vivacité bi am benn technicité bi nekk si ñun mën nañu réussir ci làmb parce que ñi mu fi fekkoon autant ñenn ñi euh, boo xoolee comme ni ma ko waxee sànq seen gabareeg seen loolu permettre woon na leen tey ñu am ñu nekk mbër ba léegi sax da ngay dégg ñu naan boo amee benn taay bi lu la tereewu dooni mbër parce que pour ñoom mbër gabari la gudd rëy la très bien mu ngi noonu mais Moustapha Gueye boo xoolee loolu nekkutoon ci moom mais li nekkoon ci moom mooy vivacité bi mooy technicité bi mooy xerañ xereñteef bi nga xam ne ni nekk na ci moom donc moom làmb fi mu ko fekk ci technicité bi la gën a yokk ba pare gëmloo yenn jeunes yi que làmb mën nañ cee gañe lu ne ci kaw ñu nekk ay mbër yu ay ay athlètes nekk ay mbër yu technique donc foofu aussi euh, tax na ñu ci baree baree baree bari ñeme làmb waaw. doomu Kaolack ndàngaan gi ñëw. yóbbu kase làmb fu ñu ko yaakaarul woon mm-hmm. ñëwaat indi sponsor ci làmb defaraat làmb muy Mouhamed ndaw Tyson moom it carrière bi fi mu fekk Moustapha Gueye teg ko fa mu ñëw jël ko yëkkatiwaat ko yéegal ko ca kaw. waaw boo xoolee euh, Tafa Gueye fi mu fi mu fi mu bayee waaram Moustapha euh, Mouhamed ndaw Tyson dafa ñëw bay waar ci beneen côté ba. am dooley mbër. am gabar bi mën a bëre. wane ni loolu yëpp mu ngi ci man waaye xaaral ma yéegal beneen level indi leneen lu bokkul. moom li mu gën a gën a gën a tuuse mooy. athlète nan lay nan lay nan lay garder boppam gestion bi nga xam ne nii moom la sportif de haut niveau war a amee gestion boobu tey boo xoolee bu njëkk mag ñi ni ñu doon bëree da ngay bëree samedi samedi ba ca topp nga waat wala bëree samedi bëree dimanche wala bëree tey Kaolack samedi dimanche nga bëree ji Diourbel beneen samedi ba nga ñëw bëri si Dakar noonu lañ doon bëree mais boo xoolee Tyson bi mu ñëwee am na benn gestion boo xamante ni indi na ko ci carrière xool combat liir komba xool combat bi lan la laaj lan laa ci war a def ci ban liggéey laa ci war a liggéey mais aussi lan laa ci war a laaj ci kase nga indiwaat beneen vole mooy athlète bi ci boppam dafa war a am beneen beneen beneen gagne bu bokkut ak ñëw ngeem bu dugg ci biir làmb ji rek bëre gagne-pain boobu mooy sponsoring bi nga xamante nii boo xoolee ci Mouhamed Ndao man boog ci Mouhamed Ndao laa laa njëkk a gisee am mbër bu bu bu bu bu gagné spot publicitaire di ko publicité au dehors de la lutte maanaam làmb bëri na ba pare mais ci télé yi da ngay gis ay yeneen spot publicité yoo xam ne gagné na ko. gisoon naa meew boo xam ne bokkoon naa ci jeu concours demee jugal meew dañ lay jox photom ndeysaan ngay temps yooyu. amoon na fi ay biscuits yoo xamante ne aussi da ko doon publicité ak yeneen ak yeneen donc indi na beneen tous mais aussi euh, gis na ne mbër war na am lu ne ci làmb moo tax muy revendiquer euh, à ce que tey mbër mi ñu jox ko cëram jox ko gëddam. ba làmb tey kase yi nga xam ne nii ñu ngi koy tudd moom bokk na ci ñi ko njëkk laaj parce que xamoon na valeur u làmb mais xamoon na ñoom aussi risques yi nga xam ne nii moom la moom la ñuy daw. ma ñëw ci keneen ki muy gone ndakaaru ikiri ndakaaru gi doomu baasul bi doomu zoal bi mu Yaxya Jóob Yékini moom mi nga xamante ni wax nañu kaseem yu bari da koo dagg jox ko adversaire am ngir bëgg a bëre moom it mu dem ba dugg ci bëre am kase bi foo xamante ni yóbbu na ko fa am loo xamante ni mosuñu ko gis ci mbër ci moom mu def ko. def 15 ans de carrière musul daanu kooku moo Yaxya Diop Yékini bëreeg champion bu ne ci làmb ñi fi te ñëpp moom moo leen daan moom it loo wax ci moom. waaw moom it boo xoolee fi Mouhamed ndaw teg tànkam dafa ñëw am lu muy ci jël renforcer ko mooy gestion bi mbër war a gestionner boppam surtout nga war a mën a gérer sa carrière ba dara du ci gàkk moom dafa ñëw jël ko ci Mouhamed Ndao Tyson gën koo renforcer parce que tey am na am na yenn gëm-gëm yu mbër di am. boo ko gisewut ci Yaxya Jóob Yékini it gis nga Yaxya Jóob Yékini di ko def boo ko jëlee jëlewut ci moom it gis nga mu koy def mooy tey ay principe yu mu doon doxee gis nga li mu doon wax slogan boobu gëw ma daanu waaw certes daanu am na mais gëw ma ko parce que bokkut ci sama plan donc loolu ay ay ay ay xeeti philosophie la yoo xamante ne nii mbër mi koy dégager dana dafa am ay principe am na fu mu teg bë bëtam te boo xoolee quinze ans de règne yooyu xamante nii nekk na ko fukki at ak juróom déggut muñal c'est parce que aussi mu ngi xool carrière sportive am lan moo ko war a jëmale kanam vrai sportif tey ci lan la war a tënku ci lan la war a nekk vrai sportif tey lan moom war a nekk ay préoccupation ak lan moom moo war a nekk ay ay mébétam donc moom aussi ci lancé boobu boo xoolee euh, Yaxya Jóob nii ci la continuer donc nekk mbër moo xamante ne nii fépp fu mën di fu mën di teg bëtam wala fu mën di teg xelam rek day fexe tey ba mën faa teg tànkam ci côté ay mbër yum mu war a bëreel wax nga ko mais aussi ay champion yoo xamante ni tey kum ci bëreel rek bu la daanee da ngay xam ne sampion moom moo la daan mais da xam ne aussi sampion bi la daan euh, nekkut ne dalaa dalaa dalaa mën daan la wala dalaa dalaa jekku daan la mais dalaa daan ci biir bëre parce que tey dañ doon wax naan Yaxya Jóob ne bokk na ci mbër yi gën a mystique certes mais aussi technicité Yaxya Jóob ni tey ay combat am yépp mënoo cee génne technique combat boo xam ne dafa ñëw daan adversaire am facilement nga naan mystique la noonu combat boo ci gis da nga xam ne kii kat ci technicité la daane adversaire am donc loolu aussi am benn volume de travail boo xamante nii moom liggéey na ko ba génération bi bokk ak bokk moom génération yëpp yéem na leen mais ñi nga xam ne nii tey ñu ngi rêvé tollook moom génération ñoom ñëpp aussi defoon nañ ko référence ñenn ñi sax defoon ko ay adversaire potentiel yoo xam ne nii ñoom balaa ñoo gëm ne mën nañoo bëri dëgg dëgg dëgg dëgg dañoo daan Yaxya Joob Yékini buñ ko daanee nag boobu lañuy ñuy soog a gëm ne ay vrai champion lañ parce que daan nañ vrai champion. Mm-hmm. man nag li ma gën a neex ci moom Yaxya Joob Yékini sëñ Bass du bëri ba. xam nga ñaar moom ma gën a neex ci moom. dugg si Yaxya Jóob Yékini ci làmb nga gis koog sëru rabal bi gis koog béjjonu kooba bi mu dugg si nga xam ni kii séeréer la. ñaareel bi mooy bu bëree ba daan la. bu toogee bay décortiquer komba bi nim la daanee. am na bi muy wax moom baabooy bala euh, Balla Beye numéro 2 mbëroo di mu ne damaa jàpp may ko mu jàpp. keroog bi ma xoolee làmb jooju bi mu ko jàppee pivoté ko daan ko jël bu rëy da ngay xam ne ndaanaan daal mooy ndaanaan mbër day daan ba pare nga ne ko noo ko daanee mu ne la xaw ma ko yax yi Jóob dalay wax détail par détail par nga gis lépp xam ni daal sampion mooy sampion Serigne Bass ko koy yax moo moo tax ñoom ñett ñëpp nag dañoo am point commun loo xam ne dañ koo bokkale mooy tey communication bi mm-hmm. parce que bu njëkk da nga doon dégg mag ñi naan mbër dof la mm-hmm. parce que waxin ba moo tax ñu koy taxé lool ñu xeeb ko mais tey nga xool ci Moustapha Guèye mu la décortiquer les combats ba pare nga xool yax euh, Yaxya Diop Yékini bu la décortiquer combat ba pare nga xool euh, Mohamed ndaw Tyson tey bu la waxee ci carrière wax la ci komba ñoom ñëpp da ngay sentir ci ñoom benn benn benn benn benn verbe boo xamante ne nii da nga xam ne kii di wax nii professionnel la ci métier kii di wax nii maîtriser na li muy wax te jiili wax bu xawee lënt ci dégg-dégg rek tey ma wax dara mu lënt sa dégg-dégg c'est parce que ni ma ko formuler moo baaxul c'est parce que man dese naa comprendre li may wax man mais wax bu ma ko comprendre dëgg bu ma waxee nga dégg ko te boo xoolee ñoom ku ci wax tey nga dégg fa muy waxee c'est parce que la muy wax du ko maîtriser mais aussi da ko comprendre donc loolu point commun la ci ñetti champion yooyu. Mm. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñetti sampion yooyu muy sama nijaay Moustapha Guèye euh, Mouhamed Ndao Tyson Yaxya Diop Yékini yàlla defal leen gudd fan ak wér euh, yàlla defal leen jàmm ndax ay champion lañ ci làmb làmb na. mais baa jile balaa ngaa dem ñoom ñu terminer ci ñoom. parce que nag euh, sorti par la petite porte bi rek bu ko bëggoon a ñoom. dama naan génn ñu par la petite porte génn ñu par la grande porte ndax nag c'est très rare nga gis champion bu def li mu war a def ci làmb ba pare continuer waat di gunge ay rakkam ñu ci bëri tey dañuy mujjee yor seen école de lutte di ca taaba taaba mais tey xoolal Yaxya Jóob ni dafa teg faata production di tëgg ay combat di jàppale ay rakam donc loolu volet bu am sens la parce li manqué ci làmb pour làmb dox moom mooy promoteur tëggkati combat yi bu ñu amee rek bari fi bërekat yi danañ bari muy investir ci volet boobu nga xool mu Mouhamed ndaw Tyson moom aussi am na ay idée mais pour mu mën a véhiculer ay idées pour ay message am mën a jàll il faut mu intégrer instance bi nga xam ne moo fi teewal làmb muy CNG gis nga fa la ne tey Moustapha Gueye aussi nekk na ci écurie certes nekk directeur technique ba mais loolu doyut parce que dafa bëgg message yi muy véhiculer bañ a yem ci écurie am rek moo tax tey mu nga TFM ne comme consultant di véhiculer ay message yoo xam ne képp ku nekk ci làmb yaa ngi koy dégg mais aussi jiitewaat beneen association bu ñuy association des a euh, des sages yi nga xam ne ñoom ñoo bëre ba bàyyi bëre donc continuer waat di dox ci làmb ñoom ñett ñëpp. certes tekki nañ seen ngemb mais bàyyiwuñu la. bàyyiwuñu la am ndeysaan jërëjëf sëñ Bass wax jooju am na solo trop ñu ñëwaat ci beneen xët bi kii di Lac de Guiers de 2 euh, lu ñu wax ci moom ci diggante ak Gris Bordeaux. waaw Lac de boo xoolee ay sorteem da nga naan dafa singili euh, Gris Bordeaux journal bi sax dafa ne euh, Lac de Guiers 2 bu mu def rek day laaj Gris Bordeaux pour bëri ak moom donc loolu du ne du ne singili la mais. tey dafa am vision hmm. vision moom la am parce que at athlète bu ci nekk aussi da ngay am vision vision bi mu am mooy euh, day xool carrière am te yan mbër la ma làmb booleel xam nga dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari adversaire am na ñetti adversaire book am na adversaire boo xamante ne nii tey xaalis moo la boole ak moom am adversaire boo xamante nii plan de carrière moo la boole ak moom am adversaire boo xamante nii amateur moo la boole ak moom amateurs yi dañuy xool combat bu logique combat bu neex ñu ne combat bii la ñu bëgg situation dana tax tey pour nga bëgg projeté wu ci sa carrière pour nga bëgg sa carrière àgg fenn fi il faut nga am benn foo jaar bu njëkk dañ ko doon wax guy gu daar nga xool benn guy gu daar ci ci champion yi nga jaar ci moom pour mën a am benn porte de sortie boo xamante ne na la permettre nga àgg fi nga bëgg a àgg. très bien wala tey situation financière tax mbër mi tey ne jël diw parce que situation yi ma nekk. naa ko jël kase ba la cay xool mais boo xoolee Gris li ko boole ak euh, euh, kii euh, Lac de Guiers mën naa ne ñaari vole yooyu da ciy feeñ muy amateur muy aussi plan de carrière parce que ñi ñu woowee VIP koo ci tudd bëre nga ak Lac de presque muy Eumeu Sène bëre na ak Lac de Guiers 2 avant muy bàyyi bëre na ak Lac de Guiers 2 tey Tapha bëre na ak Lac de Guiers 2 Yaxya avant muy bàyyi bëre na ak Lac de Guiers 2 donc boo xoolee via cercle VIP yooyu euh, da nga naan Gris Bordeaux moo ci bërewut ak Lac de te Lac de def na benn recul jël rakkam booy Niang bëre ak moom parce que boobu dafa nekkoon combat risque boo xamante ni bu pertoon rek Boy Niang day mën a accéder ci cercle des VIP yi mais Lac de aussi dafay day mën a jegewaat porte bi gën a jege booy pour booy mën ko def jaaruwaay mais gis nga réussir na ko. delluwaat na ci cercle des VIP donc seen normal tey cercle boobu doon mu bëreewaat ak ñoom te ka fa des ko mu war a bëreel Gris Bordeaux la donc Gris la ko làmb boore dëgg-dëgg te amateurs yi bëgg nañoo gis combat Gris Bordeaux ak la de Guiers parce que mosuñu koo seetaan te curiosité day tax nit ki ne non lii mosuma koo gis il faut ma découvrir ko jot nañu découvrir diggante giri Bordeaux ak la de Guiers mais tey la de aussi ci plan de carrière am daan Gris Bordeaux day yokk lu bari ci moom parce que Balla daan na Gris Bordeaux potentiel adversaire am la woon Eumeu Sène daan na Gris Bordeaux potentiel adversaire am la woon Modou Lo daan na Gris Bordeaux potentiel adversaire am la woon donc moom aussi day daan Gris Bordeaux parce que potentiel adversaire am lay doon te moom jotuta laale ak Moustapha Mohamed Ndao Tyson mi nga xam ne nii may na sens euh, euh, kii may na sens euh, Balla Gaye 2 jotuta laale ak moom mais tey bu laalee ak Gris doo mi daan Mohamed Ndao Tyson mi ko mujjee daan day day digganteem ak Tyson donc do dara dootu fa nekk day am lu baree baree bari lu mu leeral ci carrière am donc ñaari mbir da koy boole ak moom du doon singili mais ci yoon ci logique Lac de Guiers ak Gris Bordeaux dañoo war a. dañoo war a bëri waaye sëñ Bas ni ni làmb ji demee dafa mel ni Lac de moo bëgg a bëri Gris Bordeaux mais Gris lu mu am bëri Balla Gaye 2 actuellement nii moo ko ko gënal te que askan bi bëgg nañ combat boobu. waaw euh, li Gris bëgg nag mbër yëpp ñoo ko bëgg. Tafatine boo ko yeewoon tey tegal ko ñetti avance avance su Modou Lo avance su euh, Gris Bordeaux avance su Balla Gaye 2 Tafatine day jëli Balla Gaye aussi xam nga li tax xam nga li tax bëri ak Balla Gaye double opportunité da cee nekk benn mooy financièrement da ngay am xaalis parce que mbër muy maye xaalis la combat boo xamante nii combat royal sax du ko ëpp riir parce que Balla Gaye mën naa ne tey moom mooy centre làmb ji bële bëre ak moom financièrement da nga ciy génn beneen bi mooy combat bi euh, niveau bi muy am ci ci ci ci ci médiation euh, lu ci nu ma naan médiation sax niveau bi muy am tey ci ñu médiatiser combat bi niveau bi muy am tey ci ci ci ci côté ci côté ci côté koom. comme bi ma dekkilaat làmb très bien. sponsor yi ñëw. xaalis bi génn. Euh, ñi doon dund ñi yaakaaroon làmb fay na yëpp. Balla Gaye day dekkil ko mba làmb ji yékkati ko ca kaw. bëri at bu dee ay risque sax moom day gën a am opportunité ko bëri ak ñeneen ñi donc Gris Bordeaux aussi. bëri ak Balla Gaye 2 moo koy gënal parce que euh, ñam na li Balla Gaye di saf. xam na li nekk ci bëri ak Balla Gaye xam na possibilité yi ci nekk xam na opportunité yi ci nekk donc bëriwaat ak Balla Gaye ci carrière am day am lu baree bare baree bare lu mu ciy def comme li ma wax ci Tapha rek financièrement day ñëwaat mais aussi day bëgg leeral digganteem ak Balla Gaye 2 ba mu xam ndax moom Balla Gaye da koo mën daan ko wala leneen ak leneen donc moom bëri ak Balla Gaye moom moo koy gënal mais nag euh, ku mu nekk ci ñoom bëri ak Balla Gaye moo la gënal mais tey fi làmb toll. man combat bi ma gis mooy bal mooy euh, Gris Bordeaux ak la de Guiers. ak Lac de ak Balla Gaye 2. waaw Boy Niang 2 ak ball Gaye 2 aussi combat la boo xamante ne nii dafa am lu leen lu leen boole lu leen war a boole bokk du tey ci plan de carrière mais du doon aussi ci ci ci lu amateur yépp bëgg mais combat la boo xamante ne nii xaalis moo leen di boole parce que Balla bu naree toog année balance gisul adversaire bu gisee Boy Niang 2 ñu fay ko lu ko jar da koy jël parce que euh, mbër la comme moom te Balla Gaye ak esprit bi muy demee même bu ñu ko joxoon avance su yaawu jaal tey staffam d'accord mu bëri ak moom moom amul problème boobu donc tey bu staffam xoolee ne ah am nañ possibilité kat saisir tant de millions ci combat bi nanu ko jël daan booy bi ñoom moom moom amu ci sax demi mesure mais Boy Niang aussi boo xoolee. Euh, nee nañ dafa wala Boy Niang tey tante na pour dugg cercle des VIP VIP mu mooy donc day bëgg dugaat mais bëgg dugaat boobu day xool ban point moo faible point faible bi mooy tey ban adversaire lay am boo xamante ni nii bu ko bu combat bi sëfoo ci moom rek dina diis trop pour mu jaare fa te ka mu gis mooy Balla Gaye parce que daan na Sa tey ki daan Sa di bëreek magu Sa bu sa magu Sa Thiès amul benn niveau de compréhension bi rek tey day commencé naan noo booy bi daan na sama rakk kon duma daan te am beneen beneen beneen niveau bu mu yóbbu combat bi te bu boobaa ay ay ay combat yu metti lay doon charge bu metti lay doon day yenu combat bi yenu boo xamante ni booy bi bu lisidee tuuti mën na cee génn donc moom aussi xaalis dana ko boole ak moom mais plan de carrière moom moom moom la bëgg parce que tey bu daanee Balla Gaye 2 Boy Niang dama naan dafa brûler les étapes fa mu waroon a jaar même bu doon daa waroon a waaxu jaar fa mais daa daw làmb amatul kenn ku ko ci bañ mën naa ne moom mooy yoreti cëggal guyam sax adversaire bu mu bëgg a bëreel dina mën a bëre ak moom mais tey Balla Gaye xaalis moo koy boole ji ak Boy Niang 2 mais Boy ñaar plan de carrière moo koy boole ak Balla Gaye 2 mais combat boobu noonu pour mu ñor dëgg dëgg dëgg dëgg il faut Balla nekk ci ñaari situation première situation mooy mu def année blanche bañ a defaat année blanche te yaa fi sa taxafalu benn combat moo fi sës mooy digganteem ak Boy Niang man boog loolu laa jàpp ne loolu moom mooy tax Balla Gaye mën a bëree Boy Niang. Mhm. en tout cas daal lu mën a xew mooy sëñ Bas làmb jooju doon na làmb joo xamante ne askan bi bëgg nañ ko te képp kuy amateuru làmb bëgg na ko te Balla Gaye nee na ci biir waxam lépp lu amateur yi bëgg rek loolu la leen defal. loolu mooy euh, xët bu njëkk bi nga xamante ne mooy journalu mardi bi 7 euh, ma 7 euh, avril 2020 bu sunu làmb tey mu ñëwaat ci mercredi. mercredi 8 avril 2020 sëñ Bas euh, sunu làmb tiitre ci ñi nga xamante ni ñooy sama papa Moustapha Gueye association des sages nee na dafa dem ci ki nga xamante ni mooy ministre des sports Matar Ba euh, jox ko cinq cent mille francs yoo xamante ni ñoom ñoo ko dajale euh, loolu loo ma ciy wax. waaw xanaa rafetlu ko rafetlu ko parce que xeex bi ñuy xeex moom képp ku ci dugal sa loxo rek moo gën ki ci dugalut loxoom. soxla nañ ci ndimbalu ñëpp nag ñëpp euh, képp koo xamante ne nii tey mën nga cee def ab dërëm nag def ko ci parce que defaloo ko sa bopp du ma ne Sénégal mais àdduna bi yëpp nga ko defal parce que jàngoro ji tey bu bu bu deñee ci sunum réew rek te dañut ci yeneen réew yi menace lay doonaat ci ñun ba léegi parce que duñ mën a ubbi suñu frontière duñ mën a saafuwanteeg ñu ñuy saafuwanteel duñ mën a jëflanteek ñoom bu dañut ci ci ci réew mi te dañ ci yeneen réew mi it ñoom du mucc ku jàppale sa réew rek jàppale nga àdduna bi yépp donc loolu gest bu noble la geste bu rafet la euh, xanaa kay am lenn rek lu ma ci lu ma ci xaw a euh, naqarlu li ma ciy naqarlu mooy gis nga jiili lu ci nekk dafa am hiérarchie euh, tey monde sport bi ñoom ñépp ku ci am sa dërëm ministre des sports nga koy jébbal te pourtant mënoon ngaa wiire dem jox ko ministre de ministre de la santé mënoon nga koo def mais lu tax jéggiwoo ministre des sports joxe ko ministre de la santé c'est parce que am nga njiit loo xamante ni da nga ko bëgg a teg ci loxo mu teg ko ci loxo yi kam ko war a teg donc loolu lu am solo la mais tey loolu lañ man man boog loolu laa doon sàkku pour gis ko ci làmb ji parce que CNG yëkkati na 500000 francs dem joxe ko à part association des sages yëkkati nañ seen 500000 dem joxe ko à part ñeneen danañ yëkkati seen xaalis dem joxe ko à part man boog loolu rafetlu wu ma ko li ma doon li ma bëggoon mooy. parce que làmb dafa dépassé ay 500000 francs ak i 1 million. Mm-hmm. tey làmb waroon nañoo yëkkati some bu am solo jox ko ministre des sports ñuy wax ay 30 million wala vingt millions sans dépend loo xam ne ni lu symbolique lay doon certes lii symbolique na mais dogot dogot bi li gënoon mooy takk ko muy benn say ñu jébbal ko ministre des très bien mooy doole. Mm-hmm. parce que tey ministre des sports boo xoolee ñetti ñetti ñetti pàcc la mm-hmm. pàcc bu ci njëkk. mooy euh, fi nga xamante ni fa la direction yi nekk euh, ñaari pàcc yi parce que benn pàcc bi ay direction ñoo fi nekk beneen pàcc bi ay direction ñoo fi nekk benn pàcc bi cabinet bi moo fi nekk ci cabinet boobu ci la ministre euh, ci la CNG rattaché wu directement mais fi CNG rattaché wu directement tey boo xoolee li ñu waroon a def mooy CNG moomu ci boppam mbër yi ñëw dajale li ñu am jox ko association des sages dajale li ñu am jox ko reporters yi dajale li ñu am jox ko moom mu dajale li mu am coach si dajale li ñu am ku nekk tey ci làmb ak fépp foo féete la nga am nga dajale ko jox ko euh, CNG CNG jël ko jébbal ko ministre des sports ne ko làmb moo participer lii loolu moo gënoon a symbolique bas jël bosam jaar ne diw jël bosam jaar ne keneen jël bosam jaar ne certes loolu lu am solo la mais booloo bi moo gënoon a moo ëppoon solo parce que dina tax ñu siggilaat làmb booy wàññi parce que bu tasaaroowee rek lu neex a jàpp. tey euh, gis nga footballeur yi ni ñu def yëkkati seen somme jébbal ko ministre des sports mënoon nañoo def noonu làmb waa làmb dajal li ñu yor jébbal ko ministre des bu boobaa yow da ngay mën a jàpp takk bi da nga naan ya làmb de joxe nañ trente millions wala joxe nañ un milliard. day neex a jàpp mais làmb de diw joxe na lii diw joxe na lii du neex a jàpp te li gënoon mooy ñu boole ko mu nekk benn ñu joxe ko. loolu daal moom moo gënoon a rafet lii nag rafet na lool mais loolu moo gënoon a rafet sama xalaat bu gàtt. am na solo sëñ Bass li nga wax jaar na yoon am na solo macha allah te it ku nekk mun na koo euh, dégg euh, li wolof naan xel moom puso la puso bu réer la mag mun na koo for xale mun na koo for euh, ñu ñëwaat ci keneen ki kii nga xamante ne mooy suñu papa Abdou baaxum Abdou Bakhoum moom it lan la wax ci diggante combat bi nga xamante ni mooy Modou Lo ak ki nga xamante ne mooy Ama Balde. waaw combat Modou Lo Ama Baldé boo xoolee Willy Nicolai doomu Luc Nicolai mu ngi ci doon wax ay jamono euh, mu ngi doon wax naan day day day day démarrer combat bi wala da day day jéem a euh, taxawal combat bi mu mu bañ a fomm boobu raay ba aussi bokk ci staffu Luc Nicolai li mu xamle woon ci sorteem mooy combat bi mënta nekk tant que Luc génnut donc mu nekk ñaari version yu contradictoire kii wax na jëm nii kii wax jëm nii te ñoom ñaar ñoo bokk benn structure bi bu boobaa day lënt ci xelu jaam ñi euh, loolu moom moo taxoon ñu amoon ay doute ci combat bi rawatina nag bi jàngoro bi ñëwee ñëw dollee ko ci ñu xam ne combat bi nag gisuduñu fenn fu mu mën a taxawee mais Abdou baaxum moom li mu wax mooy euh, ay kàddu yu Willy Nicolaï moom la gën a jàpp ko ay kàddu raay ba donc li li wax ne combat bi mën na am mm-hmm. sans autant que papaam di génn moom loolu la gën a jàpp parce que aussi euh, combat bi bu muy Abdou Bakhoum ak keneen ku jot avance moom pour combat la ngay wax moom nañ ko bëre mu jeex kii wax naan nañ ko bëree kooku ngay gën a àndal ko ki naan non duñ ko bëree tànk nangam donc loolu euh, man noonu laa koy gisee bokk parce que bu bu nee ay kàddu yu wili lay gën a jàpp ko ay kàddu raay ba te raay nee na tànk lig génnul combat bi du am te ñoom contrat moo leen lié ak. Euh, ak Ligue Nicolas te contrat boobu dafa am jour boo xam ne bu ñu fa àggee day àgg à terme contrat bi dootut euh, dootut dootut baax donc balaa ñoo àgg foofu ñoom aussi lu ñu bëgg mooy bëre combat bi mu jeex parce que wax jooju noonu moom moo ko ciy gën a intéressé. charge bi wàcc leen benn yoon. si ñu dem xooliwaat leneen. du bëre de loolu moom ala leen dinañ bëre Modou Lo Ama Balde incha allahu rabbi danañ sëgg arène nationale de. waaw loolu moom bu soobee yàlla incha allah njort nañ ko tax xam naa ni bokk nañ ci combat yi nga xamante ni ñooy yëkkatiwaat làmb ba teg ko ci jéego fi mu teg woon Pikine parcelle moom Barça Real la sëñ Bas ñuy ñëwaat ci beneen xët bi fii nag ñu ngi wax ci ki nga xamante ni mooy euh, Malick Niang Malick Niang ak Tapha Tine lu ci suñu làmb wax ci ñoom ñaar ñooñu. Euh, dañoo ne depuis bi ko. Euh, tafaatin ak rëg-rëg njuuyee ba léegi mu ngi ci guddi gu bët setagut parce que ama ama amaatagut adversaire te ay ay saison blanche ñu ngi koy yoot li tax mooy depuis 2014 ba léegi bëriwaatagul depuis bi ko Sa Thiès daanee ba léegi nii 2014 euh, Ama Baldé daanee astafurlaa 2014 ba léegi bëriwaatagul donc boobaak léegi nii ay at yu mu toog yu mu bëreewut la bu toogaatee beneen saison bëreewut day gën a compliqué ci moom te fi mu wekkoon yaakaaram ci ci carrière lu pour lu ko mën a relancer waat mooy mu bëri ak Tapha Tine wala mu bëri ak Reug Reug Reug mi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne tey génération am la est meilleur nga daan ko lu bari la yokk ci sa carrière tafaatin mi nga xamante ni aussi porte d'entrée la pour nga mën a accéder ci VIP yi aussi boo ko daanee lu lu bari la ci sa carrière donc foofu la tegoon ay ay ay ay mébétam mais gis nga tafaatin Tine bi am na keneen ku nekk ci ci xelam Euh, rëg-rëg aussi am na keneen ku nekk ci xelam donc day nekk beneen situation bu compliqué boo xam ne nii Malick ba léegi da ciy nekk. Hmm, kon fi mu toll nii moom Malick Niang moom moo nekk ci guddi gu bës setagul ndax Malick diggante Garga Mbossé ak musa Ndoye avant muy bëre. combat boobu ci moom lañ ko doon dox diggante Malick Niang Garga Mbossé. Garga Mbossé daan Moussa Ndoye ne Malick Niang parewul pour bëre moom romb na ko. maa nga ñu ngay wax ci digganteem ak Sa Thiès te Malick Niang moo daan Sa Thiès Garga Mbossé fi mu toll nii ñu ngi laam-laamee digganteem ak Sa Thiès dawaat na tafu ko ci rëg-rëg rëg-rëg fi mu toll nii dafa mel ni moom it njuuy na ko mu làmbaat tafaatin mu njuuy ko taf Malick Niang lan la lan la ci bëri di daw euh, non du daw de du daw parce que gis nga jiile làmb ji dafa bëri ay calcul fi mu nekk nii bëri ay calcul parce que tey mbër mi nga xamante ne nii dans les normes war naa mën a bëre cinq combats doog àgg cercle des VIP bëggatut loolu li mu bëgg mooy bëre benn combat àgg fa loolu moo war a calcul bu bari bi parce que tey ku ci nekk adversaire bi ngay jël yaa ngi xool ci moom yaa ngi sént ci moom kii bu ma ko daanee pour ma am diw day yomb kii bu ma ko daanee pour ma dugg bërëb sàngam day yomb donc loolu moom moo tax yenn adversaire yi nga xamante ni tey boo leen daanee aussi Euh, dina la yóbbu fenn mais fa nga bëgg a àgg doo fa gaaw a àgg dañuy obligé di leen éviter c'est le cas de Tafatine ñenn ñi koy éviter ñu bëri loolu moom moo tax c'est le cas de Malick aussi ñi koy éviter yu bëri loolu moo tax mais làmb bu doon naataangoo ak naataangoo tey Malick Niang ñi mu war a bareel dafa bëri tey Malick ñaa war na mën a bëre ak Sa Thiès revanche Malick Niang war na bëre ak Garga Mbossé boobu Malick Niang tey war na mën a bëre ak baay ma Mandione Malick Niang war na bëre ak keneen ak keneen ak keneen am na ñu bëri ñoo xamante nii Malick Niang war na mën a bëre ak ñoom euh, mais ku ci nekk tey yaa ngi calculer fii laa bëgg àgg te ci ñaari saison laa fa bëgg a àgg wala ci benn saison laa fa bëgg a àgg donc am na adversaire yoo xam ne même boo leen daanee aussi da nga naan damay yéex a àgg donc damay obligé bàyyi leen fi te jëli leneen. sëñ Bass ñu lay jëfal bu baax a baax a baax loolu la ñu amoon ci xët bi nga xamante ni mooy suñu làmb euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax di di la kontaane xel mu sell bi macha allah boo waxee ñu xam ne <laughs> macha allah li ngay wax ci làmb maîtriser nga ko loolu xam naa li moom xam naa li gars yi ku ci nekk ñu ngi naan président CNG président waaye man xam naa dama lay mujjee yóbbu rek nga doon candidat li ñëpp ah doon président CNG. <laughs> ñu gën a ñu am compétence lool ñoo nekk ci réew mi lool la ah, loolu la ñu am compétence lool ñun defuñu lu dul di gëstu di wax mm-hmm. gëstu di wax rek la ñuy def mm-hmm. euh, te làmb suñu passion la mm-hmm. euh, ni ko mbër yi bëggee euh, di dem entraînement guddeeg bëccëg di yokk seen doole di yokk seen seen seen seen xam-xam pour bu ñu amee combat nekk au ñun noonu lañ ko bëggee di làqatu di ubbi ay ay ay yenn règlement di ubbi leneen ak leneen di gëstu pour bu ñu waxee aussi ñu ne ah kii kat am na benn xaw xaw na am benn niveau bi donc loolu la rek parce que ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg bi ñoom ni ñuy exercer woo di dem terrain noonu la ñuy exercer woo aussi di dem ci feuilles yi di xool ba xam ndax dinañ mën a am lenn lu mën na yokk sunu xam-xam mais à part ça cant ak ngërëm ñeel na la yow it ñu ngi lay sant di la gërëm dëgg yow it euh, macha allah gars dañ lay laaj saa su nekk bàyyi jiili euh, mais nag c'est normal comédien bu fomm la <laughs> c'est normal bàyyi waaw waaye ko comédien baax baax baax bu beneen yoon incha allah. am na ku ma yóbbante ci yow muy Pa ah, Aliou Darame Pape Aliou Darame nee na bërki démb day seetaan wasaare làmb nee na di seetaan njàngat bi dara du ko ci rëcc mais li ko gën sedd ci xolam mooy bi nga waxee ba ba ne jiili comme yow écho nga dëkk nee na moom loolu dafa bokk lu sedd xolam xale la mais boo ko gis. ndeysaan ndeysaan mais xam nga loolu dafa neex nag parce que nit ku ci nekk euh, li nekk sa biir xol tant que fësaloo ko nit ñi duñ ko xam te du ngistal aussi nga fësal ko xam nga écho boobu man mënoon naa ñàkk xam lan mooy écho. donc euh, gars yi maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax nag mënoon naa ñàkk xam lan mooy mais éco bu ma ko xamee c'est parce que jiili fa la dëkk te bëgg na ko ci xolam te fu mu toog day revendiquer ne man doomu éco la mm. loolu moom moo tax ma xam éco waaw mm. ah, loolu rek sag la ndam la ku nekk bu defoon lool euh, jàmm ne ñooy man man man sama koñ ay see mbulaan moo fa nekk. di wolof boo fa yóbbu xam. waaw. <laughs> tàggoo di leen jëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ne ña nga Espagne sama xarit ya Babacar borom Espagne Ousseynou Laay euh, maam Cheikh Pape Gueye Séeri Aji Gueye ak ñëpp ñoo xamante ne ña nga fa ñu leen di yéene jàmm rek di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko di jaajëfal bu baax a baax a baax sama grand caméraman muy aadama moom mi nga xamante ne lu mu cadrewul baaxul ko ñaanal gudd fan ak wér ba yàlla suñu borom defal ko lu kawe njortam ndax xale la boo xamante ne xale bu baax la xale bu am jom la moom aadama ñu leen di jaajëfal di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci benn xew-xew làmb jërë ngeen jëf